alo Ndeye alo alo alo allo Ndeye yaa ngi ñuy dégg Nday non daaw dafa mel ni coupé na. waaw mi ngi noonu kon Ndeye Gueye dafa mel ni coupé mais Mass li ñu ci a jàpp mooy moom mi nga xam ne moom mooy Ndeye Gueye nee na xamul ki xamante ne moom mooy le le présumé xamante ne moom mooy euh, moom mooy euh, ki ki nga xamante ni moom mooy Mouhamed Lamine Diaw et encore une fois nee na ki nga xamante ni moom mooy waajur bu góor ki nga xamante moom mooy euh, Mouhamed Lamine Diaw moom mi nga xam ne moom moo rey hmm. moo leen jàpp ne mom moo rey ki nga xamante ni moom mooy Abdou Aziz ki ki Dabala hmm. nee na woon toog ca buntu kër Abdou Aziz Dabala di def li nga xam ne mooy wàccee kaamin hmm. automatiquement la jug daal di dem hmm. euh, ba mu yëgal li boobax bukki booba lay xibaar ñu ne ko doomam moom moo def jëf ju ñaaw ji mu doon loo xamante ni lu doy waar la ki nga xamante ne moom moo rey waagoon bu góor toog ci buntu kër gi di wàccee kaamil naam sax xëy na xamu woon lu li li nga xamante ni moom kii moom moo li xew hmm. mais ga ndéggey euh, wax nañu daal moom paa bi xëy na xamu woon moo tax mu jug automatiquement dem hmm. peut-être que pour un peu euh, li nga xam ne moom mooy sa sécurité moo tax mu jóg dem fi nga xamante ne moom mooy kër mais daal ndéegi daal wax na wax wax kii wax wax ju am solo ki nga xamante ne moom mooy le présumé meurtrier actuellement jàpp nañ ko mi ngi ci biir gàll fii ci euh, police bu Dieynakul Mahwa ndéegé ku jeye ki xam ne moom mooy wax na information ni ki nga xam ne mooy waajuram bu góor mi woon toog foofu nga xam ne moom mooy ci bunt kër di wàccee kaamil. na solo. Mhm. jaajëf.